Moustapha Tall ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa euh, ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci euh, wuyu gi euh, tey ñu waxtaanee li nga xam ne moo xew ca compagnie sucrière sénégalaise ngay importateur. tey ña fay liggéeyee muy cadre yi amical yeeg ñoom nee nañu euh, ñi nga xam ne li nga xam ne mooy déclaration d'importation de produits alimentaires mooy DIPA yi ak commerçant yi ak ministère du commerce ñoom la ñu joxoñ baaraam tuuma ne moo waral seen kër ga euh, jamono ji jafe-jafe yi bëri. soo hmm. xam nga ñoom tout temps loolu tàmm nañu ko di ko wax. ndax am na am 2012 nga xamee ni. Euh, alternance bu guddi bi ñëw na. Mhm. Euh, euh, comment ça s'appelle Abdoul Mbaye woote benn conseil présidence euh, interministériel ñëwoon dañu bëgg wàññi daara yi parce que kii la woon engagement la woon promesse mhm. électorale la woon. Mhm. donc ñu wax leen ñu laaj leen ndax man wàññi wàññi seen suukar bi ñu ne ñoom mënuñoo wàññi. diwlin bi ñu wàññi ko ainsi suite mais. ñoom comme mënuñoo wàññi ñu leen seen production léegi bu ngeen arrêté seen comme seen production day jeex. dañu bëgg fekk moom laaj nañ commerçant indi leen bu ngeen bëggee est war ngeen mën a importer euh, wàññi suukar bi. Mhm. bu ngeen di importer ñu waaw. ñoom ñu leen nag Abdou Abdou Mbaye ni léegi comme noonu la bu ngeen arrêté seen production bàyyi leen comme par gap bi nga xam ne moom la ñu war a importer commerçant yi importer foofu la importation bi commencé. commencé ñu ko mhm. euh, euh, ñuy wax noonu. Mhm. demande la demande c'est pas une autorisation. demande la. demande d'importation euh, produits alimentaires donc du loo xam ne dañ ci war a sax dañ ko war a téye nit ki su fekkee ni produit bi baax na mais léegi nag dañ ko utiliser pour def koy quota léegi foofu la quota yi commencé ñu def ñu jox soixante mille tonnes yi ñu jox ko UNACOIS DAPO li ñu leen ko joxee ñu leen yéen séddale leen ko commerçant yi mais ñoom boobu dañ koy gérer ci seen bureau man mii di importateur de sucre nga xam ni ba ma dalee jaay suukar booba suukar baa ngi jar soixante cinq francs ñu ñu ñu ànd di commercialiser ba ñu jox leen ba ñu jox ko marché bi. ñu ko ko uh-huh. joxee. Uh-huh. ba ba ñu libéraliser ñu ñu importer problème yi ma ci am kenn amu ko ci donc normalement waroon naa man am ci quota boobu mais un kilo bi gën ma ko ci ñoom ñoo si gérer seen biir ba mujj gi ina euh, compagnie sucrière yi ñoom gis nañ ni dañoo dépassé tonnage bi ñu amoon muy au lieu de soixante mille tonnes importé nañ quatre vingt quatre mille tonnes ba mu waraloon ñoom ñu amoon euh, un vente à ñëpp d' accord ci lu ko ne woon effectivement waruñu woon dépassé le centre bi di leen dox booba loolu amoon na mais tey bu ñu jógee ca loola ñoom fexe nañu ba gérer di pa yi ba di pa kenn mënu ko traité kenn mënu ci dara lu loolu maanaam dafay am maanaam bu ñu koy bu ñu def quota yi dañuy daje ci seen euh, benn commission. Mm-hmm. def benn liste liste ba douane da koy yore kon fooy jaar ba am di pa supplémentaire mënul nekk kon di pa yi. ni ko xam ne loolu lañ koy gérer à partir du ministère du commerce ba douane mënoo foo am foofu mënul am fraude mënul am euh, double emploi mhm. donc xañ na li leen dal mooy Covid bi am na problème yi am na ci ci comment ça s'appelle encore ci commercialisation bi mhm. parce que ni mu war a doxee doxeetu ni importation yi même ñu importé presque prix yi koy jaayee amuñu ci dara man nii li ma ci li tax ma ko xam na amoon naa lu tuuti li ci am. mu mhm. deux cent soixante dix lañ ma def. ci li ñu joxe yëpp deux son soixante dix tonnes lañ ma ci autorisé moom laa importé waaye ba ma ko jaayee aw ma ci dara kon keneen noonu keneen noonu te yaakaaruma ni am na benn kooku mën a am beneen dix pas boo xam ne bokkul ak bi bi jaar yoon. donc loolu man dama jàpp rek ni dañ leen di accuser noonu gratuitement. Mhm. Euh, du la am mais nag li indi loolu yëpp nag. Mhm. mooy. dañ leen favoriser favori favori boo eh, favorisation boo xam balaa ñoo egg ci pàcc boobu euh, wax nga ko mm. tout à l'heure di payi euh, du rek euh, ci cadre juridique li nga xam ne réglementer nañ ko tey demande la donc est-ce que ñoom fa ñuy waxee ne dafa am ay faussaires yu nekk ci ginnaaw tey ji importateurs yi nekk ñu dans l'illégalité sa kër Euh, ñoom euh, demande comme ni nga ko waxee tout à l'heure nee nga déclaration d'importation de produit bi euh, tey demande la donc ci mhm. cadre juridique amagul lu leen tax a taxaw ba ngeen voilà est-ce que tey voilà autorisation ñoom ñi ña fay liggéey ñoom ñay liggéey ci CS CSS ñoom nee nañu ay faussaires maanaam wax parlant des commerçants ñu ngi ne ay faussaires est-ce que yéen ñi tey jàpp ngeen ne yéen a ngi ci légalité tey ñun ñu ngi ci légalité amul preuve facher aussi boo koy wax da ngay joxe ay preuve mënoo ne yow nit ki dafa fraude te mënoo génne benn kayit bu waree li fraude la loolu xam nga accusation gratuite mhm. accusation gratuite nit da ko war a moytu waroo bala ngay wax naa nit ki dafa fraude da ngay jàpp da koy jàpp la main dans le sac jàpp téye ni lii mooy fraude comme ni douane di def mhm. waaye doo toll fële rek naan nit day fraude day fraude day fraude te amoo benn preuve man je pense que loolu c'est trop fa ko indi amoon na fi à quatre-vingt-quatre mille tonnes. yi mhm. ñu waxoon ne moom la gaa lañ génne à la place de soixante mille tonnes. Mhm. mais loolu c'était en deux mille douze c'est pas en deux mille vingt. léegi nag boobaak léegi affaire noonu muy jaaree normal lay jaar maanaam bu ñuy joxe quota yooyu ñuy joxe. Mhm. liste lay doon ñu koy utiliser jaarale ci DIPA yi dafay am liste bien déterminée ñu kii am na lii kii am toute boobu mooy nekk à la douane. donc double emploi mënul am foofu bu a la complicité ministère du commerce ak douane parce que loolu dafa mel ni services yooyu compté buñ seen liggéey loolu mënul nekk ñoom problème bi ñu am mooy. Mhm. am nañu produit boo xam ne ñu koy def fii ci Sénégal produit boobu dafa cher par rapport ak sous région bi. Mhm. te réew yëpp dañuy indi ñoo ñu gën a yomb suukar ñoom ñooy dugal seen suukar Sénégal. Mori boo demee buntu Richard-Toll am na sucre bu jógee Mauritanie. Mhm. nga dem Kaolack sucre Gambie nga dem Tamba ak boobu Mali ainsi de bi moom moo cher te comme on dit on ne peut pas attraper la mer par ses bras munoo ni yow damay nekk ci benn îlot boo xam ni dara maanaam lu ma neex def dara du ma ci fekk boo fa nekkee jëf di produit boo xam ne da nga koy seeral mhm. nit ñi dañuy seet lu gën a yomb bu ko defee euh, sa consommation sa sa sa quantité consommation sa day wàññi mhm. parce que nit li ñu waroon a consommer ci sa produit duñ ko consommer kon li gën mooy nit ki dafa war a fexe def produit boo xam ne prix bu prix bi cher ma trop nga bàyyi ko fa parce que ñun pays sous-développé lañu mënoo ni Sénégal da nga fiy installé usine mhm. maanaam def fi mbay fi suukar canne à ba pare transformé ko ci usine boo xam ni kenn xamul ban bon ca jamono yooyu machine yi ni meloon ba pare d'une manière artisanale nga wëlbatiku euh, jaay jël sucre boobu jaay ko ci marché bi au même titre que bi ñuy jëlee Europe xam nga loolu mënul nekk mhm. mënoo concurrence ak ñooñu mhm. donc loolu régime bi fi newoon muy Abdou ñoom ñoo juum def loolu mais buñ ko defee ba pare ñu gis ñu échec la parce que dem nañ ba date bu waxoon accès nañ ca non seulement mënuñu am autosuffisance mhm. mais qualité sucre bi baaxul de telle sorte que donc euh, waroon nañ mën a revoiraat xoolaat toogaat affaire bi. xoolaat kon daal loolu ngeen di euh, ñaax ñu redéfiniraat contrat yi. convention bi. liñ ci mhm. ñëwoon xool réellement lan la réaliser ak lan la ci gagné ci xaalis. ak lan ndax war nañu war a réformer usine bi wala dañ ko war a récupérer wala wala wala mais doo bi. mu lang-lang ak moom hmm. fii ba ilaa yow mi diini mënul nekk affaire bi doxul dem na ba ci biir échec na mais nañu taxaw mais nga xam dañu bëgg ñu préserver leen seen emploi bu boobaa état bi dina xool bu baax nan lañ leen di préserver seen emploi mieux que li ñu amee nii sax mais nag su fekkee ne dañoo nekk foofu ñu leen di fay ak soo xam ne amul solo mais salaire boobu la ñu yaakaar mais bu ñu nee nit ñi ah su usine bi tëj bu tëjee lu li ngay am ak kes ñëw du doog am na ngay daal di dee hmm. da nga leen di comprendre. tey justement nan ngeen jàngatee taxawaayu ministre euh, ministère du commerce mi nga xam ne moo war a taxaw ci mbir mi tey jii. ministère bi ñoom xam nga en quelque sorte lu ma gis ni ñoom ñëpp dañoo ragal compagnie sucrière ministère beeg maanaam gouvernement bi parce que ñoom dañoo boo waxee mu ne leen am naa neuf mille emplois yoo xam ne bu ngeen ne bu ngeen ne piit ma ma ma ba dàq leen. loolu la leen di menacé mu nekk genre effet de démocratie donc. loolu état da waru ko nangu état a teg moom ci moom pression état dafa war di xool jàngat xool affaire bi ndax réellement lii baax na mhm. ndax baax na ci réew mi ndax man na jëm kër wala mënul jëm kër ndax lii nit ñi gis nañ seen bopp wala gisu seen bopp su loolu amul mu mu mu mu mu mu réformer ko mhm. mu seetaat affaire bi xool nañ ko restructuré parce que affaire la boo xam ne euh, convention bu daté depuis cinquante ans la convention bu date depuis cinquante ans war nañ toog xool convention boobu ndax war na mën a continuer wala dañ ko war a arrêté mais c'est comme du Coran dafa war a continuer ba àdduna tukki mënul nekk. d'accord tout mm-hmm. nga wax ko mu am li nga ñaax muy des assises euh, ngir ñu mën a euh, gën a euh, defaraat secteur bi. exactement. Mm-hmm. donc ay def ay assises yoo xam ne ni ñu ko mën di tuddee assises états généraux nu mu mën l'essentiel nañu toog waxtaan ci mbiru économie bi d'une manière générale. Mm-hmm. parce que boo fi nekkee sax wax ci affaire suukar boo léegee nga waxaat ci affaire tomate boo léegee nga waxaat ci gerte non nañu wax d'une manière générale. économie bi nan lañ ko war a mën a tëggaate nan lañ ko war a mën a organiser organiser waate ba ci secteur bu ci ne loolu bañ koy jouer loo mën ko jouer pleinement nit ñi xam fi nga xam ne fan lañ war a dugg pour investir fi lañ war a dugg pour pour créer emploi mais su fekkee ni dañoo bàyyi nii rek affaire bi dem comme affaire mu mel ni affaire buy dox te doxul mm-hmm. bon dañu ñaxtu rek bis bu ne am na ñuy jóg di ñaxatu te loolu yëpp amul coordination man je pense que état toog xool lan lañu war a mën a defaatee euh, euh, tëggaate suñu économie def ay ay ay ay chaîne de mm-hmm. ay wax ni léegi ku bëgg a def lii nii nga koy defee nii et puis nag mu nekk arbitre bu juste nga xam ni du nekk di jàppal ma Samba wala ma Demba bu lu jóg kako moom kako mérité nañ ko ko jox ñu bàyyi politique bi aussi ci économique maanaam di politique politicienne bi nga xam ne la ñuy def seen politique yooyu ñu bañ ko transférer ci ci économie économie bi nañu économie bi dox ni mu war a doxee indi ñu tëgg ko loo xam ne ñu wóor na ni lii day dem waaye loo xam ne du dem jarul continuer d'accord Moustapha Tall en tant qu'homme d'affaires tey jii euh, ñu waxtaan ci climat des affaires euh, Sénégal mbas mi fi nekk gis nañ ne économie bi euh, porté na ko benn coup nan la mbir di doxe non muy doxee moom baaxul muy doxee moom dafa Covid bi daf ko yokk nag ah mais naka jot man dama mas wax ni il faut mhm. que ñu xoolaat suñu économie bi ni muy doxee ñu organiser ba nga xam ne nit ñi maanaam dañu am ay chaîne de valeur yu fonctionnel mhm. lu mel ni agriculture bi man ceeb bi wax naa ko ci wax naa ko ci gerte gi mhm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen yooyu yëpp ay ay niche la yoo xam ne bu ñu ko bu ñu ko organiser ay emploi yu bari mën na ko judd mais loolu yëpp bu ñu ko defoon tey li nga xam ne moom la ñuy promettre yi emploi war na man a nekk ci économie bi te du tax ñu importer euh, commerce dem importer jaay moo gën a yam il faut que ñu xool naka lañu ñu war a mën a tëggaate suñu suñu agriculture. Mhm. xool ba nga xam dañ mën def ay chaîne de valeur yoo xam ne danañu man a permettre ñu mën ci mën ci retrouver wu. et puis mu ñu mën a créer ay emploi ba pare bu ñu war a créer taxawal usine. Mhm. ñu taxawal usine bi ci produit boo xam ne am na fi mais doo bàyyi nit koo xam ne day indi euh, li muy def li muy transformé fii mu importé ko lu mel ni mhm. blé nga importé blé bi ñëw transformé ko farine mais loolu du dara da ngay fexe yow au lieu ngay importé blé nga nga bay blé fii. boo bàyyee fii blé jël blé bi euh, jox ko usine yi transformé ko bu ko defee dana amal njëriñ réew mi waaye su fekkee ne yow blé bi ngay importé mu ñëw nga mhm. def ko farine mi ngi mel ni nga importé farine te pourtant boobu ba léegi kenn waxul ci waxi waxi euh, euh, bay fi ay blé te loolu moo doon dañ ko wax xalaat nañu béyee blé xalaat ñu yokk suñu mbay mbayis mayis yokk ñu mbayee suñu mbayee suñu mbay yokk suñu mbayum dugub suñu yooyu yëpp ay secteur la yoo xam ne war nañ ci mën a liggéey développé suñu réew te duñu compter trop ci étranger parce que li ñuy jëfandikoo li nga xam ne moom la ñuy dund li ñu lekk man nañ ko bàyyee fii hôtel mhm. yi man nañ ko fay bàyyee def suñuy tissu man nañu am autosuffisance surtout ba nga xam ne duñ soxla sax bitim réew lu dul xanaa technologie lañuy la ñuy laaj bu ko defee ñu indil ay ay ay infrastructure ñu ñu am plutôt ay ay machine pour ñu transformer loolu rek la ñu soxla soxla kon daal lépp mën na fay jógee Moustapha Tall ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di